alhamdulillah wasalaatu wasalaam ala rasulil amin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim mbokki groupe Minhaj gannaaw bi ñu sante yàlla di dellu di jul cant bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baalu àq te di leen baal àq di dellusiwaat ak yéen ci suñu ndénkaane ci biir kër gi biir kër nag góor ak jigéen ñoom ñoo ko bokk tey tomb waxtaan bi nga xamante ne bii bëgg nañ koo waxtaane mu concerné góor ñi ak jigéen ñi ndax ñoom ñoo séq li nga xam ne moom mooy sëy bi waaye ak xarit yi nga xamante ne bii tey sëy yooyu ñoom it am nañ ci benn paar buñ leen ko cëralee imma ku jigéen ki cëralee na ko ay xaritam ba su amee problème am ak boroom këram waxtaanee kook ki nga xam ne moom mooy ay xaritam imma ku góor ki tamit am na xaritam yoo xamante ne bi leen na leen dala ci biir sëy boobu bu amee problème ak soxnaam mu séddoo kook ay xaritam yooyu pour jàmm mën a am ci biir couple boobu waaye nga gis ne lu ëpp tey ci xarit yi nga xamante ne bii ñoom ñooy ñoom lañuy dugal ci néegu sëy yi muy xaritu ku góor walla xaritu ku jigéen wala xaritu ñu góor wala xaritu ñu jigéen ñi nga xamante ne bi tey mën a nekk ñaar ba ñetti nit ci ku côté ku góor ki ak côté ku jigéen ki nga gis ne tey am na ci ñoo xam ne dañu taxawee ci wili pande ci génne ay secret jàmbur yi nga xam ne ñu ngi leen koy dénk mu nekk lu ñaaw mu nekk loo xamante ne bii du jukkoy jullit mu nekk loo xamante ne bii rafetul ndax ku nekk xam nga ne sëy dafa baaxoo di am problème sëy yàlla dafa nattu sëy sëy yàlla def ci teg ay nattu yoo xamante ne bii léeg-léeg sëy boobu dina yëngu bañ na dina tas léegi léeg sëy boobu dina yëngu ba kër gi tàng jëpp tey kenn ku nekk ci ku góor ki nag walla ku jigéen ki ñaar ñu séq sëy boobu ku ci nekk am nga say waxtandoo yoo xamante ne bii bu problème amee rek ñooñu la sa xel di daal di daj nga daw waxtaan ceeg ñoom mais yow mi nga xamante ne bii yow lañ dugal ci biir sëy bi yow xarit tey ojo yii de yow lañ koy jox nga ragal yàlla ci couple boobu nga xamante ne bii tey ñoom dugal nañ la ci seen biir ngir am confiance ci yow ngir am kóolute ci yow ngir am ne saa bu problème amee ñoom seen xel daj la seen problème dina arrangé wu waaye ndax yem nga ci arrangé leen seen problème rek yow ku góor ki wala ku jigéen ki wala yow xaritu ku góor ki wala yow xaritu ku jigéen ki ndax yem nga ci jàppale leen seen sëy boobu mën a am dal yemoo ci loolu waaye jamono boo jotee lenn ci ñoom ci biir néegu sëy boobu muy yow ku jigéen ki wala yow xaritu ku góor ki saa boo ca paree yow it daal di ngay gis sab xarit ca ruq ba koo xam ne yoonam nekkul ci couple jàmbur yoonam nekkul ci sëy bi kenn dugalu ko ci amaana ñoom xam nañ ko sax waaye dugaluñ ko ci seen sëy waaye yow jamono boo xamante ne bii xam nga ca biir néeg boobu nëbbuñu la fa dara nga daal di jëlaat mbir yooyu daal di koy dem laat ci sab xarit ba mbir yooyu di law ba ña nga xamante ne bii ñoom ñooy couple boobu daal di ciy jotaat mu nekk loo xamante ne bii boroom jikko ju kawe boroom jikko ju rafet nit koo xamante ne bii dafa noobul nit koo xamante ne bii garmi la du jël mbiri jàmbur di ko wili pande di ko séddale séddale ci biti di ko saam te fekk ne ñoom seeni boroom kat dàqoo woon leen loolu pour nga def li ñu def li nga def noonu dàqoo leen ko waaye yow confiance bi ñu am ci yow kóolute gi am ci yaakaar gi am ci yow muy xaritu ku góor wala muy xaritu ku jigéen looloo waral ñu jël seenu sëy daal di lay dugal ca biir. kon confiance boobu nga xam ne yow jox nañ la ko en tant que xaritu borom kër wala en tant que xaritu soxna ci biir néegu sëy boobu yow taxawaay bu rafet nga ci war am wax ju rafet nga ci war wax waaye boo waxee ba pare boo defaree ba pare. na lépp daal di yem ca biir néeg boobu waaye bul jëlaat problème jàmbur di ko séddale ndax kat min xusnil islaamil mar'i tarkuhu maa laa yaani dafa bokk ci lii rafetal islaamu nit ki lu sa yoon nekkul nga maandu ca kon yow comme que mbir mii dugal nañ la ci ba nga dugg ci kon pour nga séddale ko sa yoon nekkul ci mbir moomu wa yow nga war koo mën a jël dem di ko partager ak ñeneen naan leen diw de moo soxnaam si mbokk moomu ak soxnaam si nangam falaa jóge démb falaa jóge barki démb xanaa du man maa leen doon arrangé soxnaam si nii la mel wala mbokk ma nee la mel wala nga ne diw de moom jongeem gi muy wax ci biti doongu la yem xanaa du bërki démb woo na ma man la woo di waxtaan ak man ci mbiru jëkkëram moo jëkkëram nii la ñuy def naa la ñuy def di génne ay mbiru jàmbur di xaw wi sutura néegu jàmbur di génnee li nga xamante ne bi moom mooy secret jàmbur ndax lan ndax yow jox nañ la confiance jox nañ la kóolute ñu ngi lay bàyyi xel ci seen sëy boobu ndax yaakaar ne kuy defar nga te lu ëpp ci ñooñu euh, tey ñu yàq lañ mu nekk loo xamante ne bii lu ñaaw la ci ñenn ñu koy def ndax am na loo xamante ne bii li ma ko waxee woon sànq rek du jukkoy jullit jullit moomul loolu kon yow mi nga xamante ne bii xarit ku góor ki nga wala xaritu ku jigéen ki nga couple boobu am ci yow confiance ba dénkale li nga xam ne mooy seen biir ba problème bu ne këttu na jonn rek ku jigéen ki daal di lay daj daal di lay woo téléphone maak sama jëkkër di nangam ak sàngam imma sax ci biir explication boobu mu jooy ndeysaan ngir yaakaar na yow dina defoo ci yow te pourtant di nga ko defal de waaye boo paree daal di xaaw yi suturaam génnee yow ku góor ki tamit sab xarit woo la ne la sama soxna si nangam ak sàngam tey jàppante ne lii moo ñu boole moom tamit wax ba dënnam jug doonte la góor la xay na ay jooy yomb ko ngir yaakaar ci yow nga conseil ko nga defal ko pourtant di nga ko conseil waaye ba nga ca pare noo def daal di woowaat sab xarit waaye sol wala nga sol sab dàll dem ci sab xarit beneen boo xamante ne bii yow sab xaritu bopp la nga daal di koy nettali li nga xam ne moom mooy vie privée jàmbur bu ko defee sëy boobu di tas problème yi koy am di génn ca bitti seeni borom di yëg ne ñoom seen néegu sëy mi ngi senn te xamuñu ku koy sennal parce que yow yaa bindoo xarit te fekk xarit boo xamante ngi bii ci biir dafa am loolu làmboo loo xam ne du koy ba tax ngay génne li nga xam ne moom mooy secret jàmbur ci bitti mbokk yi nañu delloosiwaat xel yi te xam ne jullit dafa war a am jikko yoo xam ne dafa war a nekk ci moom muy buñ la dénkee mbir nekkal bàmmeel mbir mañ la dénk yóbbu ko bàmmeel rek waaye bu mu senn waaye boo jotee mbir moo xamante ne bi yawit mbir moomu xamoo lan mooy euh, càllala ga xamoo mbir mu nam tàmbalee fexeel ba mbir moomu na gëstu ba am ci lu la leer parce que borom subhana taala mi nga wax naan in jaakum faasiqun bi naba in fatabayyanu bu ñu mbir dikkalee nañ ko leerlu waaye ñun suñu problème tey mooy problème mu leerlu ñu lañ am tàmbalee ko nag ci sama bopp laay tàmbalee dangay dégg mbir nag këtt na jonn nga ne mooy yéen moo ko def jabaram jooju yéen da xamoo leen ko muuraayam googu de ci kaw la yam làmmiñam boobu de nàngam wala nga dégg borom këru jaamu ñu ne mooy yéen moo ko def moom de moom tubayam jooju ci këlam boobu sikkimam boobu moom de nangam ak sàngam te gëstu woo xamoo la ca biir wala nga jël problème jaamur boo xamante ne bi tey yow boroom dénk na la ko tayyib mu nekk loo xamante ne bii tey vie privée la mën nga cee def waxtaan parce que waxtaan ay conseils yu bari dana ci génne ci ñi nga xamante ne bi tey bu nit jëlee sëyu jàmbur tey def ci waxtaan te waxtaan boobu nga am yéene ne yéene bii ma am de mooy waxtaan bii mbirum jàmbur mi tey ma teg ci taabal ji wala ma teg ci biir groupe bi ah, di ci def benn tem ci waxtaanee ko amaana audio ya fay bàyyi ko ci yenn mbokk yi di ñëw ñu koy déglu ci ñaar couple yooyu dina doon lu leen di jëriñ ci seen néegu sëy bu fekkee ku jigéen ki moo am yenn jikko yi amaana dina ko dimbali mu ba ko bu fekkee ku góor ki moo am yenn jikko yi amaana dina ko dimbali mu ba ko waaye ndax loolu mooy jubluwaay bi waaye ndax loolu mooy jubluwaay bi parce que nag innamal amalu bi niyaat mbir mu nekk la nga ca yéene rek loolu la la ci yàlla di fay ndax ba ngay jël yow sëyub jàmbur di ko def thème du jour naan nañ jël sëy bi tey wala nañ jël tomb bi tey parce que jot naa ñenn ci ay nit dañuy def nangam ak nangam seeni borom kër wala jot naa ñenn ci ay nit dañuy def nangam ak nangam seeni soxna kon nañ ko def thème du jour ndax yow sa yéene mooy thème du jour boobu boo ko defee cay audio yi cay wàcc ko mu nekk jëriñ ci ñoom wala da ngay def thème du jour pour xamal nit ki ne nda lii may wax nii man ki ma koy waxal xam na ne xel moo moom audio yi pour lan pour wilipande jàmbur donte la tuddoo turam waaye moom dina xam ne yow moom moo waral nga def audio yi wala pour weer secret moo waral yow nga def audio yi gannaaw ba nga xamante ne bii euh, toog nga ak moom waxtaan ak yow wala ngeen di dundu di séddoo ay mbir nga di ko xamal mu lay xamal ba bis ñëw problème am na seen diggante walla dara xewul seen diggante amaana moom moo la neexatul. amaane sa dund moo am beneen changement nga daal di jël nag moom sëyub jàmbur yow daal di koy saam ci biir groupe yi di ko weer saa su ne muy dégg loolu te xam ne yow lii ngay wax nii moom moo tax nga koy wax ndaxte yow la ko waxaloon yow la ko dénkoon yow la ci waxtaanaloon nga daal di koy jël ne ko tàcc ci ay groupe donte la tuddoo turam waaye dina xam ne yow miy wax lii biir néegu sëyam yow la ko waxtaanaloon loolu mbokk yi du jukko ju baax ne naa leen gar du def loolu ku noobul du def loolu ku baax nekk ci yow doo def loolu ku gore doo def loolu ndax boo demee bay def euh, sëyub jàmm di ci def thème di jour sa yéene mooy sëy boobu na ca defaroo bu dee ku jigéen ki moo am sikk mu fexe cee defaroo bu dee ku góor ki moo am sikkit mu fexe cee defaroo waaye bu ko def dine nit lii ma la xamal saa bu ma xëyee dinaa ci def thème te fekk sa yéene mooy lan mooy di ko xam ne man la ma la xamal tey rek nga xam ne lii ma la xamal ñëpp dinañ ci jot loolu du jikko ki nga xamante ne bii mooy góoru jullit bi wala jigéenu jullit bi ndax suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko yàlla di tagg jikko ju baax la ko taggee woon jikko ju rafet la ko taggee woon kon jikko yooyu dañ koo war a roy ci moom moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax li tax yàlla ne bu ñu mbir dikkalee nañ ko leerlu tey ñaata ci ay nit ñoo jot ay audio yu jàmbur te xamuñu lan mooy sababu ojo yooyu mooy nit jël na ay audio am yónnee la wala ay audio yu jëkkëram mu yónnee la ko déglu loo la ko pare waaye déglu goom la ko dégluloo di xalaat ci ay conseil lan nga may conseil ci audio yi nga dégg wala lan nga may conseil ci sama waxu borom kër ji wala lan nga may conseil man ci sama audio yii nga daal di jël yooyu yow daal di koy téye def ko arme en tant que yow nga ne yow jullit ga te pourtant kooku problème boobu ko gaar amaana yow problème bu raw loolu gaar na la te moom it ma ngi la dencal sa sutura boobu musul toog fenn ba waxtaanee ko fa musul toog fenn ba wax ko fa ànd ak loolu yëpp mu nekk koo xamante ne bi ma lay ñaanal ci say problème pour mu rek wu waaye yow ba nga jotee ca loolu gëstuwoo lu waral audio yi gëstuwoo lu waral euh, euh, li am am yow ba nga jot ci ndax lan ndax dafa séq ak koo xamante ne bii da koo wor ci ay kàddu couple boobu séq naa koo xamante ne bii wor na ko ci ay wax wor na ko ci ay jëf lan mooy wor yi mbokk yi mooy tey par exemple euh, jël naa samay audio borom kër jox ko Ramatulaay Mbaw ma jël exemple ci sama bopp parce que du ma jël ci kenn tey su ma jëlee samay audio yi kër jox ko Ramatulaay Mbaw ne ko déglul Ramatulaay Mbow ba ma ko koy jox sama yéene mooy Ramatulaay Mbow mii na ko déglu pour conseiller ma pour jàppale ma nan la jàmm di dellusee sama digganteeg sama borom kër nan la ñuy amaatee dal ci suñu biiru néegul sëy Ramatulaay déglu ojo yi ba pare balaa man may supprimer ojo yi Ramatulaay jël ojo yooyu daal di koy transférer ki nga xam ne moom mooy Mariama Dieng ne ko déglul Fatima Lo ci damay joxe exemple rek nag ne ko déglul Fatima Fatima Lo di nangam ak sàngam Fatima Lo di nangam ak sàngam Mariama Dieng daal di jël audio yooyu moom it daal di transféré beneen rub xaritam ojo yooyu di law ba Fatima Lo mi nga xam ne moom moomoon audio yooyu daal di cay jot jot ne audio yii de diw laa ko yónnee woon diw yónnee na ko diw diw yónnee na ko diw ba audio yooyu dellusiwaat ci Fatima Lo ne diw moom ko yónnee woon de am na kum ko yónnee ndax lii mbokk yi maandu te la ci biir néegu sayu jàmbur ndax lii ak jikko ju rafet la ci biir néegu sëyu jàmbur boo xam ne dañ la caa dugaloon ndax lii ak nite la parce que yenn yi nag ak nite sax nag moo ci amut ndax loolu ak nite la ci biir néegu sëyu jàmbur boo xam ne dañoo am confiance ba dugal la ca ndax lii jikkoy jullit la boo xamante ne bii jàmbur yooyu dañoo am confiance ba dugal ci seen biir néegu sëy muy góor nag muy jigéen mbokk yi nañ delloo si xel yi ci problème nit ñi nga xam ne ñi ngi koy jot saa ñu ko jotee nañu fexe ba ña moom te wóoluñu dénkuñu seeni secret nañu waxtaan ak ñoom waaye ñu bañ a jël mbiri jàmbur di tas ak a weer di bañ a jël mbiri jàmbur di xaawi seeni sutura ndax Séné euh, àdduna bi la yàlla bindee noo xamante ne bii couple boo gis day am problème bu feeñee am na problème bu feeñul am na problème ndax li tax mooy yonent bi sallallahu alayhi muccul woon ci problème mu néegu sëy te moom moo ñu gënoon fuuf moom sallallahu alayhi wa nekk suñuy royuwaay waaye ay soxnaam nekk tamit ay royuwaay te moom moom muccul woon ci problème mu néegu sëy kon amul benn doomu aadama amul mbindeef bu ci mucc mu nekk loo xamante ne bii ndaal la ku nekk rek am nga ci guux boo ci war a guux kon li tax yow nga war a jël nag mbiri jàmbul di weer di tas te fekk mu am ci yow confiance te fekk mu wóolu la te fekk mu am yaakaar ci ne yow de bu la dénkee ay mbiram conseiller ya nga ko cay jox wala xel mu rafet bala yàlla dénk wala xalaat ba nga ko koy jox di fekkoon ne dafa naroon xàddi ci sëy boobu dina gën a mën a toog muñ bu fekkoon ne ku waroon découragé la ci sëy boobu dina gën a mën a toog muñ kon yow yow xaritu ku góor saa bu la boroom këru diw dénkee ah mbir ci ay soxnaam laaye ko ci biir waaye famu mu yem ci nga yemale ko fa ngir nga bañ koo tas ak di weer sëyub jàmbur waaye yow xaritu ku jigéen bu la nit ki dénkee ci biir néegu sëyam ci digganteem ak boroom këram yamale ko fam la yemloo waaye bul jël sëyub jàmbur di ko weer ak di ko tas ndax su boobaa loolu ak tooñ la ak ñàkk maandute ak ñàkk nite ngir ne loolu bokkul ci jikkoy jullit te tey bariwaana ay nit yoo xam ne dañ lay jooytu diw de dama ko dénkoon sama biir néegu sëy ba ma paree déggaat naa ko feneen te ka ma ko déggee moom moo ko wax kooku wala diw de dénk naa ko ay ojo ci sama biir néegu sëy pour mu laay ma ci ji biir ba mu paree supprimé wul ojo yi waaye dafa jël audio yi transféré ko ay nit te naan déglu leen lii lii war nañ cee def tem diw sàngam de moom nii la nekkee boroom këram mu nekk ay ñaawteef mu nekk ay mbir yu suufee mu nekk mbir yu doyee di mu nekk mbir yoo xamante ne bii képp koo xamante ne bii diiñ nga am nga personnalité di nga jomba def loolu di nga nekk koo xamante ne bii kuy garder secret jaamul ngay doon bal la ko yónnee sax da nga koo war ne carrément lan moo tax nga may yónnee audio yi jàmbur man ci sama yoon nekkul waroo ma koo yónnee ndax loolu dafa bokk ci personnalité nit ki ak maandute ak jikko ju rafet mooy bu jëlee ay audio jàmbur yow yónnee la ko la ko yónnee danga ko war ne man lii lu ci sama yoon parce que yónneewu ma ko yow la ko yónnee kon waroon ngaa denc secret jàmbur ba doo ma ko yónnee waaye mala asaf loolu ñen ñoo koy def mooy ñi nga xam ne seenub ànd yàlla moom moo ko lal ñi nga xam ne seenub ànd ngir yàlla moom mooy sabab bi ñi nga xamante ne bi seenub ànd nekkul ànd boo xamante ne bi ànd jeyante la tàggoo jëwante ànd boobu mooy ànd bu ragal yàlla ndax ku ànd nit àndu ragal yàlla buñ la jëlee mbiri jàmbur yónnee la yow mi nga xamante ne bi ragal yàlla mi ngi ci yow ku góor ki sa mbokk mu góor ma la ko yónnee te sa yoon nekkul ci mbir moom di nga ko ne yaa waroo ma woon yónnee mbiri jàmbur yi parce sama yoon nekku ci yow la ko yónnee kon mbir mi mënoon naa des yow bu ko defee bu ëllëgee fukki xelam ak ñaar doot ko xalaatali jël mbirum jàmbur du la ko yónnee bu fekkee audio yi ku jigéen la moo la yónnee ay audioom sa yoon nekku ci ne ko yaa uxti audio jàmbur yi nga ma yónnee waroo ma ko yónnee ndax man sama yónneeku ci yow la ko yónnee bu fekkee kooku fukki xelam ak ñaar ëllëg dootu ko may mukk muy jël audio jàmbur di la ko yónnee lii mooy ak ragal yàlla lii mooy maandute waaye lii mooy la lii mooy fayda lii mooy ak diin ci nit ki mais ñu nag tey li ñu yàkkamti li ñuy li ñuy xintewoo mooy jot ay problème jàmbur ba weer ko li ñu yàkkamti mooy jot vie privée jàmbur ba xawi suturaam li ñu yàkkamti mooy di xawwente sutura lu ñu yàkkamti mooy di weer ay góor li ñu yàkkamti mooy ku nekk ci biir biiri dunqam nga fexe ba dunq yooyu mu nekk di suturaam nga daal di fexe dunq ya naaw ngir suturaam xawee ko li ñu yàkkamti mooy néegu sëy bu yëngu ñu jéem a xam la ko yëngal ñu daal di koy vilipande li ñu yàkkamti mooy koo xamante ne mi ngi ci biir sutura ak boroom këram te suturaam boobu mu dénk la ko nga fexe yow bala nga cay xam nga xam ko daal di koy def arme nag taxaw daal di faas ak couple boobu wala nga faas ak ku góor ki di jëkkalu ndaw si wala nga faas ak ndaw si di jabaru waa ji ngir lan ngir look ñoom ci arme bi nga xamante ne bii yow ñoom ñoo la dugal ci seen biir néegu sëy ba nga jot loolu ca ñoom mu nekk loo xamante ne bii lu ñaaw la ñu delloo si xel yi te ragal borom bi subhaanahu wa taala tey kenn ku nekk ci ñun rek am na looyu yàlla loo xam ne bu ko yàlla ne woon muret musiba am kenn ku nekk ci ñun rek am na loo xamante ne bii tey wallahi bu ko borom bi génnee woon rek musiba am kon nañuy sàngante sutura képp ku la dénk biiram dencal ko ko képp ku la dénk suturaam dencal ko ko képp koo xamante ne bi yow la yaakaar ci biir néegam ba waxtaan ceeg yow wallahi nekkal koo xamante ne bii dénkaane loolu da nga koy yóbbu bàmmeel mais bu ko weex képp koo xamante ne bi sa xarit bu góor wóolu na la ci soxnaam ngir sëyam dal waa bu amee problème na la yaa ax kaay toog ak mar a bi nga waxtaan ak moom wala toog ak mbokk mi jigéen bi nga waxtaan ak moom fexeel ba loolu mu la dénk bu mu senn bu mu génn ngir ne kat sutura googu yow yàlla fexe ba dugal la ci biir néegu sëy boobu ñoom seen confiance buñ la jox la ak kóolute guñ la jox la ak yaakaar gi ñu am te yaakaar dafa diis kon bu tas ay yaakaar mbokku julit bul xaawi sa sutura mbokku jullit bu ko andil benn déception boo xamante ni bi bu la déggee ñu ne mbir mi ceew lu jóge dina ne diw de bett na ma ndax xalaatuma woon sama mbir mi ma ko dénk dina ko génnee kon lii lañ leen tënkaloon lu ci jub lu ci rafet ci borom bi subhaanahu wa taala la lu ci dëng ñoo xam ne ñun ñu di doomu aadama ñun ñoo matul lépp lu ñuy wax nag ci suñu bopp lañ koy tàmbalee ndax waxtaan bu am rek jël ci sa saw saam te xamante ne bi yow da nga ciy ñu ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp àq aqulu ma tasmaun subhanaka allahuma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu